lillaahi rabbil aalamiina maa ngi sant borom bu tedd bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu santaat sunu boroom li ma booleeg Cheikh si njabootu Cheikh Mat Bamba chance bu rëy la ma judd doon murit bëggal sama bopp sëñ Touba ba xalif général wax ma ni ma bëgg gi nga bëgg sëñ Touba mën naa ko seede kon loolu chance bu rëy la maa ngi jël sama ziar jox ko sëñ Xaadim mu jottalil ma ko sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa wax naa ko bind ko xéewal bu yàlla wàcce la pour mu defar jamono ku ko bëgg werante rek koroog na nga ñëw mazaali mazaali nga xam ni li sëñ bi bëggoon yépp mi nga fa sëñ bi dafa boole jullit yépp ci benn buum wax al murid ku na mu jëm sa yàlla mazaali ñépp bokk ko sëñ Tuubaa am fa ndam lu rëy fu mu gën a sonn muy ndakaaru mu am fi jumaa joo xam ne ñépp dañ koy yéeru jumaa jooju mu bokk ak képp koo xam da ngay wax ashhadu an laa ilaha illallah ba nu julee jumaa ba pare tàkkusaan su jotee dañ fa def xadra boo xam ne àddina bi yépp di ko seetaan kon loolu sëñ mu taxaa la amee yàlla na fi yàgg te wér moo tax ma ni xéewal la goo xam ni yàlla daf ko wàcce mu defar jamono li Bouchra doon wax rek yenn saa yi daanu tiit ci jamono waaye nag ku ànd ak Cheikh Mountakha du tiit ci jamono ndax moom ñaar yi tax na kenn dootu ko werante ci yoonu murit gëm yàlla bu sell jël sa bopp jox ko yàlla ba mu jeex tàkk kenn werantee ni mu ngi ci yoonu murit ma tontu nag kooku secret la daan fa àgg su waxtoo jotee ma wax leen lam ma tontu sëñ bi nga baal ma fi mosuma fi ñëw di wane tuuti si ab politique man doon taalibe sëñ Tuubaa daf ma gënal lépp ndax li sama lépp sëñ Tuubaa su ma jëlee sama àddina def ko film di ko xool su ma xoolee sama bopp ba mu jeex seet fa ma jaar ak fi ma agsi du ma wax cëy ma dikke ñaar cëy sëñ Tuubaa li ma defal moo taxit fu tool dama koy yëkkati ba bi xam je suis fier d'être mouride je suis fier de vivre mouride je serai fier de de mourir mouride waaye ma gis la nga doy ma ma gis ni nga joxe sa bi ma dan ma wax ni ma bah lalu mo bah waye di wax mënuma ko roy ndax bah ga mu baax déedéet mënuloo mënuloo mel ne moom waaye gën ko roy yow nak señ bi na bëgge rasulullah non nga bëgge señ tuba moo tax tudd la khadim khadim te luma gëm la di dund kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax ni la mbolo mi ma bok Idrissa si ak yeneen chef de parti ñu ngi lay nuyu Pape daf ma ñaax daf ma ñaax léegi bu mënuma ko bañ tudd ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sargal ñu ngi xam sa taxawaay si dëkk bi waxoon naa leen su ma ñëwee dinaa leen fi teewal Pape Diop annoncé na ko kon ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm li ci des xam naa ni moom ngeen yàkkamte déglu waaye sëñ bi la ma waxoon rek laay dellu si ñàkk la xam wóorul alhamdulilah bi ma la xamee jërëjëf sëñ Touba.